Bismillah. élection locale yi eh, est ce que dana am i tribune yéene kaay ne mané kaddu yi Moustapha Diakhaté day waw ci liste Touba be eh, ab rox ndolo la nar a nekk de marti taali ngir ak kon élection yi nga xam japp nañ ko ñaar fukki fan ak juróom ñent yoru soye juin bu ñu sukkandi ko dama ne la ci ay xibaar mané la amna ci ab réunion wo xam kon ña fa nekkoon bari wuñu de déedéet Moustapha Diakhaté ma nga won ci réunion ba Moustapha Cissé Lo ma nga won ci réunion ba mané la ak yeneen i punkal laa lay wax ni le ñoo ñee ñoo dal di proposer président Macky Sall waw ne ko gis nga président dama ne la APR laa la wax même bu dee sakoon am na ñeneen ñu ñu àndal tamit am na ci ay gox yu baree bari élection yii dañu koy ñàkk i la ilaha ma ne la ñoom punkalu APR yooyu ñoo ko wax président Macky Sall waaw daal di koy xamal ne nag élection yii dañu ko war a dàq waaye loolee kor Marème bañ Macky Sall président ne leen lànk naa prenez vos responsabilités jël leen seeni matukaay parce que élection yi ak lu mën am dama koy amal la ilaha si wal yéene ne ma ne gis ah yu ne ko nañ dàq yi laa la wax ndaari lam tooro daal lànk ndaare kon ba tëdd ca suuf ca élection locale yi élection locale yooyu yooye la solo yéene kaay nee ma ne la député Mously Diakhaté waaw nee dana yóbbu nag maanaam kon ab loi ci assemblée nationale gay ngir képp koo xam ne kon bëggati ngaa bokk ci ay élection locale nga fay xaalis laa la wax daal di joxe caution uh-huh. Mously Diakhaté na waaw parce que liste yi bari nañu génn xeetu bari koo xam ne kon maara day taali loolee day dolli dépense sakk ci président Macky Sall day mu daal di wax nag ci kàddu yi nga xam ne kon Moustapha Diakhaté yëkkati na ko Bassirou Sine mais soo leen gisee may sàkku ci président mu wax parce que ñu baree bari dañoo yaakaar ne kon Macky Sall mi lee daa ànd ak Moustapha Diakhaté uh-huh. waaw waaw parce que kàddu yi Moustapha Diakhaté yoo yee neexul kilifa diine yu baree bari te Moustapha Diakhaté nag nekkul n'importe qui Moustapha Diakhaté nekkul ay joxo-joxo am na kenn koo xam ne tam surtout xalif général murit yi la soxna Aji Seck waaw ma ne doomu soxna Mbène Mbacke la surtout bi daal léegi lépp leer na Macky Sall ci boppam moo nekk ci ginnaaw lii lépp ngeen di Macky li ko war fi mu nekk nii mooy mu wax surtout Serigne Touba ba yemu ca ndax de soxna Aji Seck mi lee nee na Macky Sall daal bu waxulee ci lii na ko leer ne danañu ko déclarer guerre danañu defanteeg moom laa la wax waa PDS tey dañoo fas yéene defanteeg waa APR ci élection locale yi ba mu neex eh, termine yéene kaay ne Abdoulaye Wade kay ah, yëkkati na gàngooram nga de ma ngi leen di ñaax de waaw waaw enquête yéene kaay ne dëgg la dëgg la Wade un plan de guerre fas yéene naa amal nag ab tournée nationale la fa woote dal fa woote tribune yéene kaay ne ko non non non non dal déedéet Abdoulaye Wade kay la wax leer na nee na mën ngeen boteel ku ne ba des Macky Sall wax la des nag après la laa see réunion directeur bu parti démocratique sénégalais bu njëkk bi Abdoulaye Wade kon fekke waaw non yaram nag daw na yaram daw na Abdoulaye Mbaye Peex moo yëkkati kàddu bu njëkk ubbi waxtaan wa Oumar Sarr xamal Abdoulaye Wade ne ko remplacer la yombul fara Wade njaak daara Wade njaak a tas élection locale yi lée waaw lu am importance la ci ñin ndax moo ñu yóbbuwaat ca kaw waaw waaw ca nguur ga dama leen ne même bu leen jinnee sax laa la wax waxee ngeen votel APR lànk leen ndaare ba tëdd ca suuf man Ablaye Wade maa wax bàyyi Karim Wade yemu ca ndax Ablaye nee na képp xam ne daa contre Macky Sall jàppale leen ko ngir ñu dakkal trox tàngee coono li nga xam ne kon moom la Sénégalais du dund Idrissa Seck ci yéen kaay gi ne danoo a xeex ne de dégg te nag na nga jëm ci ay élection yoo xam ne nar naa dar lool ma la wuy jax-jaxi waaw waaw Abdoulaye Wade daa fas yéene battre campagne day campagne de ngir tasaare kon waa APR écrasé leen laa la wax même bu dee sax day lëkkaloo ak njuumali Abdoulaye ko wax waaw waaw Abdou ci direct info ne Idrissa Seck moom danañu ko audité dañ koy audité Idrissa Seck ci le populaire ne ko gis nga Thiès kii maay borom <laughs> eh <laughs> cay sikundik sikundik ne jinne jommal na la Idrissa ne laasé lu jëm nag ci conseil des ministres bi nga xam ne fii lañ koy defee ci Thiès la ma di xamal yéen waa Thiès mooy génn leen ngeen gàttandu kilifa yi même bu sax a paquetu biscuit la ñu fiy indi makkee gàngooram waaw même bu dee paquetu biscuit la ñuy indi na ngeen leen gàttandu Idrissa ci le populaire ne gàttandu leen ngir ñu yeggali sàncay sax ca jamono joojee université ngay jax direct info ne ak lëndëm gu rëy sax waaw lu tolloo téeméer ci ay étudiant ak ñetti ca université googu kenn mënu koo nangu laa la wax enquête yéen Kay massacre lay wax xale yi dañ waaw waaw Sud Quotidien université googu a jege de waaw de defanteeg étudiants def leen ko laa la wax président yemu parce que jox na ko ndigal ministre de l'intérieur nee ma Abdoulaye Daouda waaw ngir ñu daal di jël na kaaraange gu mat sax ci biir université waaw ak topp képp koo xam ne jàpp nañ ne kon ay mbirum vandal di mbirum woyu ngay def ca université yi Mary Teuw Niane nag ministre ba moom moo laal ka kooti ga moom waaw waaw ci la populaire Mary Teuw Niane nee na xam ne kon dàq nañ ca wàllum fitna googu même bu ko laajee laa la wax danañ leen dàq génnee leen université dàq leen ca biti ah <laughs> waaw laas ne Karim Wade day waaw dugal na ab kay dee ngir bàyyi naka ndi ko liberté provisoire moom boppam kanara moom mooy alkali Cissé ubbil libération yéene kay ne nar naa rëcc ci kaso de Macky Sall kay yërmande waa Arabie Saoudite ba pare nag génnee ñaar fukki junni ci dollar daal di koy teg ca taabal ja tey wàllub yoon Ndella Madior Diouf ca kanamu yoon la jëm siiwal yéene kaay ne moom Ndella Madior Diouf day waaw ay nit a ko fekk ca biir rajo ba ca Mbuur koy séquestré tëj ko la ilaha illallah doomu Madior Diouf fii di Ndella Madior a <laughs> ne waaw parce ay paaka la ñu yore woon ak ay jaasi bëgg maa rey ca biir rajo ba yée alaaji yemale naa fi wax ji rajo rajo la ku ma fi fekk kii jaaseeg paaka laay bañ wala xanaa ma fabris ngemaa ko à tous et à toutes bonjour